dafay dolli jom day dolli courage may sant bu baax Wally Seck ci taxawaayam parce que démb moom aussi ak soxnaam nelawuñu ñu ngi jaabante di seet lu ma soxla lu ma bëgg ba ci xaaju guddi kon maa ngi koy remercier bu baax moom Wally Seck ma ñëw rekk ci ni ngeen déggee coow li parce que nag boobaak léegi gaa yi dañuy nettali manaar manaar naar yaa ngi gis naa ci biir presse bi parce dañu ma woolu ma ñëw ñu ne ma dañu lay topp war laa déglu audition parce que da nga def diffamation ma ne leen maa ngi déglu ñu ne ma danga ci teg ay injure publique maanaam danga am ñoo xotti seen war ma saaga ma ne leen ahan ñu ne nañu tàmbali ma ne leen bisimilah ñu ne ma dafa am ay kàddu yoo yëkkati ci conférence de presse premier ministre yëkkati ay chiffres wax ko nga ne chiffres yi du dëgg ndax dangay dëggal kàddu yooyu ma ne leen ca sama conférence de presse tontu naa président parti PASTEF président parti PASTEF nee na données économiques ak budgétaires yi Sénégal di jëfandikoo ci at yu bari dañ cee roof njublan man ma delluwaat wax Ousmane Sonko ne ko li nga wax waxoo dëgg. ay kàcca ma yëkkati ay kàddu la ma waxoon lañu ma doon laaj teggiwu ma ci virgule lépp lu nga xam ne maa ko waxoon ci conférence de presse bi fii ma waxaat leen ko ñu dégg ko. lépp lu ma yëkkati woon ci kàddu ci conférence de presse bi fii man Bougane je l'assume je l'ai assumé et gis naa ci biir presse bi ay wàll yu ngeen bind ci biir audition bi amu ci lenn loo xam ne man Bougane yox yoxi naa ci walla ma dellu ci ginnaaw amul bi gën a neex ñu ne ma mais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 damay ñëw ak loxoy nen ma génneel leen rapport yi tegal leen ne leen rapport yii moo weddi Ousmane Sonko mais ma ma dem ci beneen wàll ma ne leen mais yéen da ngeen ne dama diffamé mais man bëgg naa xam kan moom ma porté plainte lu na ngeen ne dama diffamé ñu ne waaw ma ne leen yéen nee ngeen dama diffamé ñu ne waaw ma ne leen dama bëgg ngeen wax ma kan moo ma porté plainte parce que pour diffamation am il faut plainte am ñu ne ma non kenn porté wu la plainte ma ne procureur dafa autosaisir ñu ne non procureur autosaisir wut ma ne waa ñu ne mais dañu bëgg nga wax ñu lan moo tax yow ngay ñàkke war ma premier ministre ma ne ko man ñàkkew ma wor ma président parti pastef man waxuma ak premier ministre de man président parti pastef lay wax ma ne ko yéen ñi jàkkaarloog man moom Ousmane Sonko ci conférence de presse bi ma koy tontu nee na Macky Sall day fen Macky Sall moo doon président de la République du Sénégal Ousmane Sonko sañ na wax Macky Sall day fen mais Bougane waru koo wax ne ko yow mii dangay ngay fen waaye waay nañ ñu wax ñun ci ban réew lañ nekk ma ne leen yéen war ngeen comprendre ne man Bougane man du ma ragal est-ce que danga am problème ak Ousmane Sonko ma ne ko benn problème rek la ñu am mu ne ma lan la ma ne ko dëgg dëgg rek la am comme problème amuñu beneen problème bu tegoo ci dëgg daal nangu sàmm kàddoom du ñu am benn problème waaye bu fekkee ne heure buy wax ak nit ñi mu ngi teg marto ak di dóor linjaa fu mu dóoree linjaa 11 heures midi ma teggi linjaa gi parce que nag ñun Sénégal moo ñu ñor amuñu beneen nationalité amuñu leneen feneen kon réew mii nga xam ne moom la ñu jox suñu lépp du ñu nangu kenn di ko fooye du ñu nangu kenn di ko yàq yegg nañu ba ci ne ma mais yow dégg nañu ay fonctionnaires yoo xam ne tudd nga leen mais fonctionnaire yooyu est-ce que xam nga ne li nga dal ci seen kaw war na mën a tax yoon dal ci sa kaw ma ne ko déedéet président parti Pastef nee na données économiques ak budgétaires yu Sénégal dañ ko falsifié ci at yu yàgg ma ne ko Cheikh Diba mi tax ngay wax moo doon directeur de la programmation budgétaire ma ne ko Cheikh Diba mi tax ngay wax moom moo demoon jiite ji mission FMI yi nga xam ne ñoom ñoo doon négocier le budget triennal d'investissement kon bu fekkee ne bu ñu demee ci tubaab yi chiffres ya ñu leen di yóbbul baaxul képp ku ca àndoon yow bokk nga ci njublan ñu ne ma mais yow est-ce que xam nga ne kàddu yi ngay yëkkëti di ko jëmee ci Sénégal day yàq darajay Sénégal